jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax a baax ñu ñëw ci première euh, mi-temps bu Sénégal diggante moom ak Nigeria ci qualification euh, euh, Jeux olympiques Sénégal basket bi les Lions sont en train de créer un exploit exceptionnel ci diggante ñoom ak Nigeria actuellement nii ci premier deuxième quart-temps bi suñu gaynde yi jigéen ñi ngi wàllu métti ñi nga xamante ne ñooy nigérians yi donc j'espère que j'espère que ñu maintenir niveau bi mais attention attention euh, équipe nigérienne ils sont très costauds physiquement dañoo taxaw donc attention gars mais Sera Dilar ak Yassine Diop ñu ngi xaw elles sont en train de faire euh, match bu am solo donc ci dis que ak es nga xamante ne Sénégal premier match ci qualification li nga xamante ne Jeux olympiques yi ñu war Paris 2024 donc j'espère que Sénégal maintenir niveau bi actuellement ci deuxième quart-temps mais. en tout cas dama leen wax def leen attention ah, parce que Nigéria moom xam nañ ko benn noiru Sénégal la et tout mais j' espère que Sénégal gagné j' que ñu gagné match bi incha allah wéy leen di like di commenter jaa ngeen jëf.